Eh, looy ree da nga kontaan de fi mu ne nii. nit bu bu xamee. li pour yow nga defar nga lax ni togg la nii pour yow defar nga lax togg la. yaa ngi defar nga lax pour yow togg la da nga kontaan te yow. kontaan naa ko <laughs> kontaan nga. ndax li nga defar nga lax nii rek. ñu lekk. moo tax ma te lu ma wóor ma ni tey tey tey ku ndogu naan ngalax waaye dina lamb de. astafurlah. ngalam dina fi lamb de. bu ñu xamee xaalis koy defar li ñu dagg dagg bee ñoom yow nag moom. déedéet waxuma ñooy du neex du neex moo tax du neex. dina neex. ah bisimilah amal ngor rek. man <laughs> kay bu neexee moom waaw loolu kay moom billaay ak koor gi. bu neexee moom ñépp dinañ ko yëg moom dégg nga. ma ñamal la. <laughs> Deba rek ñun ñëwi daal. ñeneen la lan ngay bañ. non non dara. lu gaaw ci ni maa ko togg trop. <laughs> chrétien yi am nañ problème. laay li moo tax am xaritu chrétien yi baax nag. dama bari nga ci xarit waaye ara nga lax yi yaa ngi defaral sa bopp nga wax sama bi dëgg ah, oh. bi de man suur naa de. <laughs> dafa ndugg nga kay cii dëgg sax xorom kaas bi sax kaas maam Cheikh Anta la de ah. <laughs> borom ne ci kaas bi non nga lax invité naa leen ñëw leen naan si nga lax ah. invité nit ñi nag invité nit ñi xam ne yow mën nga defar loolu lu baax lay tax a jóg waaye saboté lañ tax a jóg <laughs> xam bu ne bu ngalax bi neexee ñëpp dinañ xam ne ngalax bi neex na. waaw hmm. ah, bu neexul nag ñëpp nañ xam ne neexul. bu neexul neexee di nga rus nga wax lépp. li moo tax am xat nu njaa. kon yéen dem ngeen ci kaw. ma. man man woote man. Eh, li xor mbet na nga ne ngalax ngay defar li xor mbet na

yow pompe daan dugg maanaam. ah waaw <laughs> bi bëri na de. ah <laughs> du daal. nii nga defoon yenn say ñaam bi naa da koy rooti temps ñàkk da ngay fàttali ko temps ñàkk. man de man de suur naa. papa muskaat dégg moo di jàppale na ma ci waxul dëgg. <laughs> ku ma ci man. ndogu sax nangoo koo def ndax sa ngalax

jàmbaari Cheikh Anta ji. waaw dama dikk ah, fekk. waaw lu jombe. waaw tool moo doon picc yi ñoo doon fekk ci tool waaye tey tool bi moo fekk si picc. billaahi. bin dikkee daal fekk ko ci. waaw taalibe bi Cheikh Anta bi. Mm. danoo ñëw fekk ko mu tiim. siwam ngalax waaw ma laaj ko lii fu bàyyi ko waaw ndax sa mbokk njaago yi ñoo la tibbal mu ne ma mm. ngir barkeelu ci soxna Mariama oh. ak doomam ju baax ja yont yàlla Isa oh. maa xëy demal sama bopp marché dëgg la jënd sama buy dëgg la jënd sama sama sama tigadege ah, jënd sama cere toog defaral ko sàmm. ndeysaan xelil ñu ñun ñëpp kenn ku ci ne kaas. billaay kaati ma ngi ne kaas wala si dégg nii gaa yaa ngi nii. kenn ku ci nekk yow sa bopp. kaati yow ngelaw li muy saf. ah. ngelaw bi sax ngelaw bi mi daa jeex de. am na lu la woon